2005 ba léegi nii nañu dund soxlul sax ngay wuti reer yoo ngay reeree boo ngaa ngee yooyu dugg xale yaa ngi gis nga suma sët yi ñëpp feebar lu ñu woote ci élection bi gisuñu ci benn satisfaction ñu ngi bugg dee ñun dañu ku ñu jàppale ngir yàlla ñu bëgg suñu njaboot yaa ngi bugg dee kenn liggéeytul suñu am suñu doom yi liggéeytuñ ñun liggéey ñun ay transrail laa doon liggéey liggéeytuma xale yaa ngi ni kenn amatu fu ñu liggéey boo boo demee dañuy dañu fanaan ngàcc dañu yendoo ngàcc su ma sët barki dem fii mu ngi fii dëkk fii ci biir dafa feebar yaayam dafa obligé jël ay lamam dem ci bitig bi leble ko teg ko fa pour ñu mun bu doom ji ci guddi boo fa duggee sax looy faj amoo nooy jënde ordonnance fees dell ak ndox saret sax du fa jaar waxatumal oto dañu sonn dañu sonn xoolal li xoolal xal yi mun da ngay da ngay taxaw di téye xal yi koy jël ñu dugg ci biir mi mosuñ bu ñu yàl ay des rek lañ fiy gis waaw ay maire bu demee ba élection passé wala kii ñu dugg ci kër yi di waaye waaye mosuñ gis fii journaliste mosuñ gis fii politicien surtout ci affaire woote